Je m'appelle Léon Paul Diata, ancien jour de Aldo Gentina, Sonacos, Damel de Thion, Yves Gore et euh, Kaya Foot de Thion. Activité, activité des bon, vais arrêter ba légui, j'avais un copain bouma ubiloon fi poulailler ci laa doon liggéey xam nga di ci suturoo di di ko gérer par ndànk nank ko parce que comme la vie n'est pas facile et puis voilà quoi moom lañ jéemoon di adopté wu di ko def par ndànk-ndànk ak suñuy business yu ndaw yoo xam ne ay jënd jaay la ko ci yooyu lañ. carrière maa ngi ko commencé école de football Pady bi ndaw fii Tivaouane noo fi jógee ci laa dem Aldo Gentina jógee Aldo Gentina. ñëw Dames de Tivaouane bi ma jógee Dames de Tivaouane ma dem Sonacos après Sonacos ma dem US gore US Gorée fa laa am sama sélection équipe nationale locale coach Joseph Koto moo ma sélectionné woon en même temps année boobu ci laa amee contrat professionnel Tanger Maroc. waaw Maroc avant may ñibbisi. moo man problème foofu ak naar yi ci contrat bi parce que dañu toog ay trois mois quatre duñu fay bon ñu résilier contrat bi léegi waa waa US Gorée wut seen avocat jël seen prime de signature vingt millions man sama six millions yi ma ñàkk ko ma ñëw fii expliquer président ne ko mais pourquoi man ngeen jël seen vingt millions ba pare mu ne ma ñoo ñu doon wut suñu avocat yow yaay wut avocat man ban moyen laa am pour wut avocat en plus ñoom sama transfert ñoo tax ñoom ñu lekk vingt millions kon ñoom mënoon nañ defee neneen ba man ma jot sama six millions sama xaalis des foofu mais yooyu yëpp ay jàngat la ko après mu ñëwee fii gars yi proposé ma naa delluwaat foofu boo ma ne pourquoi pas naa delluwaat foofu bi ma fa delluwaatee coach bu bees ñëw fa mu tudd Aliou Kandji bi mu ñëwee xam nga premier mois ça s'est bien passé mu dem ba ci biir nee na day indi problème parce que nii dañuy da ko ne entraînement wala dañuy kii des trucs comme dem wax ko signaler ko président wax ko président woon ñu ne ko ñun la ñuy def entraînement yu demoon ñun dañuy ent entraîné pare ñibbisi amul leneen ah même benn jour boo xam ne sax ñëw na nu mu teg noo ban Joseph Koto romb noonu xamal ma ne ma dañ leen convoqué équipe nationale lundi na ngeen ñëw c'était un samedi ak Guédiawaye moom muy kaas loolu naan waaw nit ñi dina fi ngay concentré pour lan mais temps amuloon moyen pour nit ñi. di kii dañ koy convocation de ci kii lañ koy gisee quoi ci journal bi après ñu appelé ak la ko moom dem na ba benn moment mun a yow yàgg am benn copain ku doon jamanka ne ma yow yàgg ko US Gorée waru leen fay sax ndax yéen ren année bi li ngeen passé seen temps équipe nationale moo ëpp ko li ngeen ko passé ak club bi regretté na, regretté wu parce que sama né c'est le destin parce que déjà waruma woon dem fofu choix bi mo amone mo dama waron dem Norvège ben agent bu youssouf Youssoufa mo waron yóbbu Norvège mais jubóowuloon nag ak Augustin ci pour mu yóbbu mo Norvège par la suite euh, amone CHAN 2000 2008 bi 2009 bon CHAN Loco yi premier CHAN Loco bi amone Côte d'Ivoire man ci groupe bi boron dem ci la bokk. mais bi ma ko waxee Joseph Koto moom sax dafa bañal na ma bul dem parce que Maroc mooy loolu quoi tey nga dem CHAN bi am am contrat en Europe moo gën a yomb bon après par la suite ñoom ñi conseillé ma président ak dirigeant yi conseillé na ma comme fin saison la rek dama rek nga tànn sa chance bu ma demee deux séances laa def ma signé contrat professionnel bi ma woowee Koto di ko wax na ko dama signé contrat sax dafa xawoon mer dafa ma mere parce que man ma dem fee. signé fa contrat parce que bo signé contrat do mën nek nekk équipe nationale parce que euh, dootoo dootoo nekkatoo ci championnat local bi quoi lolou moma gënon lolou la gëna regretter nak ci sama aduna wa pourquoi ma arrêté carrière football bi wa am parce que amul amul amatul amatul motivation ba paré fi lo mérité duñ la jox je vois mal. un na ñu convoqué joueur am équipe nationale muy mer fii rek laa ko gisee ci niveau Sénégal fii bon yooyu ak yeneen ak yeneen ba pare dañu am championnat mu jeex nga resté trois mois yoo xam ne vacances ngay nekk trois mois kenn du la fay kenn du la def dara léegi yow nga war a ñëw yàgg sa famille ak yow jóge fay ñëw man ngay xoolee nit ñi ñu naan kii mi ngi liggéey te indiwu fi dara dafa metti parce que salaire bi demeewul noonu. yooyu yëpp boo ko dajalee dafay métti ci xol quoi moo waraloon sax nit ñi yenn saa yi ñuy jóge fii nga dégg jour première division ñi ngi dem di sàcc di football ay nawetaan feneen après dina lay mujjee manquer de respect te man comme genre yooyu man nekkuma ci je préfère ma arrêter. regret bi ma gën a am ci championnat Sénégal mooy que. jour bi ma waree dem Youssou Fall benn benn agent bu ma waroon yóbbu Norvège bon mu ñëw wax ak euh, Augustin Augustin bañ parce que dañoo amoon ay problème ñoom ñaar ci benn jour beneen bi mooy que ne Touré bu yëgoo waroon ma yóbbu Saint-Étienne parce que man maa waroon remplacer Bafé Gomis mu waroon dem Lyon bon mu bañ loolu après mu xëccoo ma ba jël ma ba indi ma go Yes mu am problème ak entraîneur moom mu libéré ma bàyyi fa entraîneur kon ça prouve que ne moom am na injustice foofu quoi parce que bu ko jaarle woon yoon amaana waruloon mën a deme nii te moom ñëpp xamoon ne man amoon naa carrière bu baax bu ma waroon a suivre carrière professionnelle parce que bu ma ko mën loon ñoom duñ ko duñ duñ ma recruter quoi. ah mais dina metti parce que tamit. kuy fayeeku moins de cent mille francs ci championnat Sénégal ñu ne professionnel la ngay fayeeku moins de cent mille francs après ñu lay daggaloo ay presse ak ak caisse sociale doo comprendre quoi mm-hmm. loolu xam nga ne taxul ñu naan football bon en plus que ñun yàlla def ñu jotoon na dem ci haut niveau bi ba xam la ñuy fayeeku foofu quelque sax donte bariwul mais mën na tripler lu raw li ñuy fayeeku fii bon tu es obligé da ngay mujjee arrêté professionnel ñu ne la cent ñu ne na cent mille moins de cent mille franc ngay fekk loolu ban ban ban ban xeetu professionnel la doo comprendre quoi man li ma gën a tax ma gën a arrêté loolu ci la bokk quoi.